waaw daan nga. ana bal bi. paas na bal bi. eh boy. boy.

kadabra. Andi kadabra. Eh. Follow me, yo, I'm gonna go.

léegi ñu koy ñu bëgg a koy xam nga loolu ñoo ko ñan ñoo ko ñan ñoo koy def léegi li déwén ñu am jëriñ dina bëri ñoo ko tey jii ñoo tey jii ñoo intérêt askan wi da ngay foofu nële yéen nga ah au détriment de foofu def parce que loolu tey jii franchement parle ban crédibilité la ñu war a mën a def léegi les les poussées. poussées poussées poussées reste reste

la grande majorité de ceux qui sont concernés te xepp ngeen xamul la ñu mais d'habitude day mel ni ñoom seen yoon newul ci mbir mi wala ci salon yi la ñuy ko wax fii du xeexu Barthélémy Diaz je le félicite au passage mon frère Barthélémy du xeexu Guy Marius Sagna je le félicite du xeexu Pastef waaye xeexu sénégalais yëpp la dafa am loo xam ne xel mënu ko nangu barkaati démb dafa am benn kilifa bu moo woo dëkk fële ci gannaaw euh, booru Mermoz mu ne ma mbir mi da ngeen ci war a wax parce que ñun biñ fi dëkk jamono sengor la woon waaye ñemewuñu woon tabax yenn tabax yi parce que jamono jooju dañ ko interdire woon te amoon nañ moyen bi mais tey su ma taxawee sama terrasse ñun dootuñu gis géej gi ma ne ko mais yow vous êtes yéen vous êtes les premiers concernés mais est ce que tey suñu leen woon génn ngeen génn leen di ngeen génn kenn ci yéen du génn loolu nag mooy le mal du Sénégal soo ko waxee ñu ne wax ji dafa naqari waaye ñun nekkuñu fi di seet lan moo war a neex nit ñi waaye dañuy seet li yenu maana ak lii dëgg ñu wax ko tey euh, coono gi ñu daj ak mobilisation bu ñu def pour ñu yokk deux heures de temps ci couvre-feu bi jëlee ko vingt une yóbbu ko vingt trois heures bu ñu defoon xaaj bi ci mbirum corniche bi problème bi réglé na couvre fa boobu ñu yokk deux heures de temps lan la changé ci dundu Sénégal yi est-ce que yokk na seen liggéey wala seen afia wala waaye soo fi ne woon suñu pétrole ñu ngi koy sàcc suñu gaz ñu ngi koy sàcc suñu zircon jaay nañ ko suñu littoral bi dem na suñu géej gi amatuñu jën nga ne sénégalais yi mobiliser bu boo moytul soo demee obélisque doo am lu mat euh, trois euh, deux mille personnes loolu nag mooy problème mu Sénégal nañ ko waxante ne nit ñi xam lan mooy priorité fii nag suñu plage ñun dañ fay yàgg di entraînement yàgg naa fi di ñëw ànd ak famille bi yëpp samay doom gis ngeen ñi ñëpp famille bi la les garçons ñu nii ñëpp ba ci ma princesse Fatima ak le gardien de la maison Blacky ñun dañ fay yàgg di suñu Nous nous sport def nous avant bu nous paree dugg dem nous gis ngeen li fi ce n'est plus à présenter littoral est bien jël Nous ñun amatuñu fi droit Nous lépp new fi y a quelques mois en arrière Nous fi tous les nous nañ ko accaparé

moy du problème problèmes nit wala problème sénégalais Si su ko sénégalais yi mu arrêter, tay dina que soobee yalla lima ci wax nak ñaar la la ko conclure bi concerné ñi jox fi bu yebo un message bu yebo ñu bañ fay milliards parce que ñun de buñu yalla yàlla ku fi tabaxone dinañ parce que sénégalais yi accès à la plage et au littoral loolu mon premier message bi ñaareel bi moy les autorités administratives sëñ bi dama président bi moy les autorités administratives yi nga xamné ñom ñoy ñooy signé kayit ñu ngi leen di wax ni képp ki nga xamné sa complicité sa responsabilité engagée na di nga rendre compte devant la justice te dootul nak faux départ yi ñu defoon tapalé ñu doon def naan traque des biens mal ak yi nga xamné règlement de compte politique ku fi def loo warut a def yàgg naa ko wax samay discours samay meeting wàllu suuf si ku fi def loo fi warut def bu soobee yàlla bu fi Macky Sall jóge di nga dem rendre compte te négociation du am intervention du am kilifa du ci dugg di nga rendre compte parce que lu Sénégal yëpp moom ñetti nit ñeenti nit jël ko lekk ci ay milliards dafa dul yoon dafa war a jeex ci réew mi. loolu lañ ci mënoon wax ci lu gàtt di wax nag nii c'est dommage gis nga fi mu ne nii moo nga commencé fële lañ ko jëlee. hôtel yi di ñëw di ñëw lépp jël nañ ko ba fi mu kenn amatu fi droit kenn mënatu fi def dara ok littoral bi yëpp jël nañ ko ñun dans deux dans dans quelques mois mënatuñu fi ñëw naan dañ fi entraîné wu ah lool moo ne woon li ñu bëggoon waxtaan ak yéen ci lu gàtt la ca des nag euh, invitation la woon bu ñuy lancer Sénégalais yi pour la pratique du sport xam ngeen ni depuis quelque temps dañoo lancer ñun ay programme bokk na ci programme joxe deret les sportifs là yéen est-ce que joxe ngeen deret. joxe naa ah? Ah, joxe kii joxewul. man joxe naa. joxe woo gën a xam naa. man man je fais partie de Pastef. waaw mais kañ joxe joxe woo. joxe naa deret yaa ngi ko ah? joxe kii ñu fii centre de transfusion sanguine Fann. ah du ñoom ñooy wër dina seet. mais ñun dañuy déplacé wu. via euh, notre club là qui est aussi fait partie d'un club. dem euh, le joxe. très bien ñu ñu toll. mais ñii dañu war joxe très waaw kon pratique du sport dafa ànd ak loolu ku wérul munoo joxe deret lii suñu programme yi ñu engagé muy reboisement bi muy dem di nettoyer les plages les les les lieux de culte. ak les les cimetières euh vacances agricoles yi nga xamné lancé nañ ko té dès euh, semaine prochaine dinañu def lancement officiel lool yépp dafa and ak wér-gu-yaram wér-gu-yaram nak bokku na ci likoy koy moy la pratique régulière du sport ñu ngi inviter tous les sénégalais ñu xamni té ñu ga baña gaaw a sénégalais ñaaré surtout suñu mbokk jigéen yi ku ci am 35 ans def ñaari maternité ñett rek japp nga ni légui jeexna nous invitons tous les Sénégalais à la pratique régulière du sport du sport comme on dit un esprit sain dans un corps sain c'est ce que nous avons thématique euh, même dans le cadre du parti avons lancer un concept pour section commune tous les dimanches sur place bi leen nous terrain leen góor ak jigéen ak ñëpp mu am un moniteur buy conduire les les trucs ñu def une heure deux heures de sport nit ñi doog a dem seen kër loolu moo doon lu ñu leen doon indi ñu ngi leen gërëm di leen sant kii nag di def film bi euh, El Malick Ndiaye gis ngeen biir bi waral sa biir bi waral sa biir bi dara newu fi dara newu ci tànk yi dara newu ci tànk yi gars yi jërëjëf comme ni ngeen ko gisee donc live bu ndaw la woon rek euh, ni mu leen ko diggee woon saa su nekk euh, bu di wax ci différentes thématique yoo xamante ne nii dina soxal askan wi tey nag ci wàllu saax-saax bi ñuy saax-saaxee littoral bi la doon wax euh, yaakaar naa ne dégg ngeen liñ ciy wax même bu dee qualité sonor bi xawoon na des ndax vague yi ak coow yi mais ñu ngi leen di dox jox di daje euh, bientôt incha allah ci euh, beneen fànn ak beneen thématique jaa ngeen jëf